voilà salaamaaleykum mbokk amee internet univers info ak bii promédia comme niñ leen ko doon toppalee ci actualité bi nga xamante ne moom moo xew ci Sénégal booba tey ñu ngi leen toppal campagne yi booba tey aussi toppal nañ leen élection yi boobu aussi toppal nañ leen premier discours bi nga xamante ne monsieur le président Diomaye Faye def na ko foofu ca benn hôtel bu nekk fii ci Dakar tey nag démb ci guddi la gis benn information ñu gis ne ki nga xamante ni moom mooy président Ousmane Sonko dañ ko nommé comme premier ministre tey ñu nar wàcc fi nga xamante ni moom mooy ci Grand Yoff pour nar laaj ñi nga xamante ñoom ñooy sénégalais yi yi parce que tamit am nañ ci benn part de responsabilité bu bari boo xamante ne war nañ ko ci wax léegi dañuy dugg ci biir marché bi laaj leen seen appréciation ci nomination yi nga xamante ne am na Caaroy dañ leen di ñaan rek ngeen topp ñu ñu dugg ci biir ngeen xool intervenant wu ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi oh. gars yi duudu bismillahi rahmaani rahim ñu dugg ci biir ah, ñoo ngi lay fay sang bi alhamdulilah nañu xam tur bi Cheikh Loum la Cheikh bu Sonko Cheikh dem nan nga jàngatee nomination bi nga xamante ne président Ousmane Sonko am na ko comme premier ministre euh, du ma ne gulet ndax ku togg togg ba mu ñor yàq yàq des ci bu ñu la lekk nga ci kenn waru koo wéddi Ousmane ci Sénégal yee ndaw ñi taxaw ndaw ñi wubbi suñu bunt suñu bunt buumu jaam gi ñu gi ñu tënkoon Ousmane Sonko ñëw dagg ko tey bu ñu ne Ousmane Sonko nommé nañ ko premier ministre man moom du ma bette kaw ma kan waaye man moom bettu ma dama ne Ousmane Sonko weesu na lu weesu premier ministre man dama doon dégg euh, président ak huit président dama noon foofu sax ko doon xaar waaye damay kontaan tim ci premier ministre bi ñu ko def. c'est parce que liggéey na ko mérité na ko ku ñu waxoon ne yow yaa war a nekk son excellence ñu ñëw xeex ak yow xañ la ko sa liggéey nga ko nga réussir sa combat jël sa jël sa ndam bañ nommé la premier ministre kon alhamdulilah moo ko waxoon nag bu neexee alhamdulilah ala kulli bu naqadee alhamdulilah ala kulli haal kon Ousmane mérito na premier ministre bi mérito na toog tànn tim xam ñi muy tànn ñooy ñan ndax ko liggéey la soxla soxla wuñ ñëw nguuru moom Ousmane ci boppam démb wax na ko nee na liggéey la ñu soxla soxla wuñ ñëw nguuru kon tey bu Ousmane ñëwee war a tànn ñi nga xam ne ñooy premier ministre ñoo xam ne ñoo war a nekk ministre yi war a liggéeyal Sénégal combattant yi war a nekk ci terrain bi Ousmane war leen tànn dama ne gàcce nga laama Bassirou Diomaye Diakhar Faye son son excellence ndam li yàlla na la jik waaye liggéey bi ci kanam bi ci kanam moo ëpp lépp loo xam ne jajoon nañ ko ci ginnaaw moo ëpp lépp loo xam ne coono la woon ci ginnaaw instant bi nekkuñ ci dabu bànneex de dabu Sénégal askanu Sénégal seen bànneex moo ëpp solo foofu dabu bànneex dabu bànneex nag mooy jël def sa poos yow ak say ñoñ son excellence monsieur Bassirou Diomaye monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye maa ngi lay alerter si loolu la waa ji nekkee woon wala la keneen nekkee woon déedéet fàttalikul askanu Sénégal bi la taxaw xeexal guddi ak bëccëg. kon tey ñi nga xamante ni dañoo jàppoon ni kii di Sonko day toog. seetaan ki nga xam moom mooy Jomaay wala boog ñu si bëri amuñu woon yaakaar kan dina dugg ci biir gouvernement bi yow àndoo ci loolu. non ñooñu ñu bëgg a mbaqus la rek ñu bëggoon a jege son excellence bëgg a cuus bi ñooñu la rek li ñuy wax ay affaire de nante man dañu bëggoon Sonko écarté wu ñoom ñu jege pour mën a mbaqus pour mën a def ci seen poste mooy paa yooyu rek dem nañ retraite ñooñu ñoo soxla woon Sonko écarté wu waaye ñun askan Sénégal soxla wuñ Sonko écarté wu rawatina ñun seenu Sénégal ñun Sonko ci kanam joomaay su boobu la suñ xel di door a dal waaye Sonko écarté wu na loolu suñ xel du dal loolu suñ xel du dal instant yi Diomaye na déglu Sonko waaye terewul mooy président buñ ne ko na déglu nag na xool moom ak Sonko ñoo bokkoon procès bi ba yegg ci fu ñu yeg ci ci combat réussir seen combat kon liggéeyu Sénégal bi ci kanam moom ak Sonko la ndax ñoo ñu digoon procès bi lu ñëpp bokk ñëpp jot kon tey yow lan ngay xaar ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon euh, candidat présidentiel yi te ñu ñàkk tey yow gis nga ba xam ñoom war nañu mën a am poste ci li nga xamante ne moom mooy gouvernement tey. waaw ku sa loxo set mën nañ laa tàllal loxo nga ñëw ah am na ñoo xam ne ñu ngi woon biir yeewu askan wi nañ jéem a juboo rek nañ jéem a ànd ak ñoom gaaruwaale beeg politique bi nañ ko tegee te ñi liggéey Sénégal nañ teg politique bi côté gaaruwaale bi lépp nañ ko tegee côté ñi liggéey Sénégal. am na ci ñoo xamante ne newuñu woon biir yeewu askan bi mais pourtant ay borom yi xam-xam lañu de. xamante ne waaw loolu laa la wax ma ne ku sa loxo set sa kaam sa sa kaang baax ku sa loxo set sa kaang baax monsieur Sonko dina la jëli Sonko xam na li Sénégal ndax Sénégal gii la juddoo yaroo fi màggee fi jàngee fi xam na Sénégal ba mu toogee di xeexal ndaw yi da doon yee Sénégal ci doxalin bu ñaaw kon xam na lu ñaaw lu fi nekkoon bu laalee dara bu ñuul bi nag teg fi dara bu weex bi. xam na lu mu koy lalee nañ ko seetaan nit duñ ko jiital di ko fëkastal man bëgguma jiitu monsieur Sonko ci lépp lu muy def waaye xam naa ku sa loxo set di nga liggéey ci gouvernement bi. tey boo benn cri de cœur boo xamante ni da nga leen koy wax à ko que ñu focus ci loolu lan nga leen di wax. maa ngi leen di wax ñu focus ci ndaw ñi ndax ndaw ñi tey temps bii ñu toll kenn liggéeyatul ñëpp a toog seen buntu kër yi gaaram place yi toog di naan ataaya liggéey amatul jàng ba toog di xool amul importance képp kuñ jox wàllu njàng mi na nga bàyyi xel ndaw ñi nga xam ne ñu ngi ci école yi di jàng jàng ba pare am sa diplôme toog di xool amul njëriñ Sénégal dafa war a weesu foofu am nañu pétrole am nañu gaz am nañu zircon am nañu or monsieur Sonko moo ñu yee ci loolu temps biñ toll liggéey la ñuy woote waxuñu bàyyi ndaw ba fee tànn sa ñooñi bopp loolu soxla wuñu ko fi nguuru wuñu dañuy ñëw defar Sénégal dañuy gouverner si waaw kon nag ku ñëw di gouverner ku ñëw di gouverner nag da war a xam sa àq ak yelleefu doomu aadama yi ndax doomu aadama yooyu takku taxaw daw mille kilomètres campagne la daw mille kilomètres pour taxaw nga jot ci réew mi ñu sacrifier suñu bopp génn dem wooteel la atum ren bi li génn dem woote ji ci village yi da xam nan la toll kon nguuruwuñu dañoo bëgg a dagg buumu jaam gi dagg buumu jaam gi nag ñu ko mën a amee ci fii xale bi 44 ans la am 44 ans catuwuma la yàlla bula ca topp waaye liggéey senegal lañ la woo woowuñu la ci nguuru. ajaw yaay booy nuyu nañ la. waaw maa ngi lay fay. mën xam tur bi. maa ngi tudd Ndioba. Ndioba waaw. yaay booy démb bi nga gisee nomination premier ministre Ousmane Sonko bi nu mu la def. kontaan ba bëgg a dee nag ñëpp yéene ko ko nag xale yi xeex nañ ba dee ndax Sonko Sonko rek la ñuy topp barke Serigne Touba ñu noonu kii mi daal yàlla ko yàlla defal xéewal waaye nag moom tamit nag yàlla bu wor Sénégal ndax xale góor yëpp dañoo rayante ndax moom na jàppale xale góor yi sonn nañ jàppale ñëpp amul góor amul jigéen ñëpp a ngi daan seen dool yàlla ko ci yàlla may ndam bu kawe tam daal loolu laa koy ñaanal. démb bi nga seetaanee passation euh, de service bi nga xamante ni def na kii monsieur le président Diomaye Faye ak président Macky Sall def nañ ko nanga ko noo ko gisee. xanaa kontaan ci nag waaw ndax moom affaire bi sax koo jaaxal ndax génn ko góor président loolu ñëpp la yéem te loolu looloo dàq lépp nga président boo xam ne waajoo ko yàlla la defal la loolu moo dàq maa ngi kontaan daal ci kii bi daal kontaan naa ci daal. léegi kon candidat yi nga xamante ne ñoom ñoo perte euh, présidentielle bi tey gis nga ñoom ñu dugal leen ci li nga xam ne moom mooy gouvernement bi nga xam ne ñu ngi koy xaar ni ki tey incha ñoom dañoo war a pet defuñu fi dara affaire bi Ousmane Sonko la déggoo ma de a am comme ministre. kenn du fa nan dem rek waaw nan dem rek Sonko xool ko neex mu teg loolay dëgg waaw mi ngi noonu doy na ma loolu gisuma ko ndax Sonko moom doge ba tey ngor la wane ngoor la wane te moom lañ ko xamee atel rek ndam rek baax na merci beaucoup waaw ndànk-ndànk rek nag ndànk-ndànk waa client ñi ngi ñëw ndànk-ndànk rek ndànk-ndànk affaire moom ndànk-ndànk ah ah instant yi de moom moom ñu ngi moom ñu ngi lal toog xaar yàlla moom yàlla yàlla defal lépp nag ñu ngi ni toog ah ah say ma ne dem toog naa moom waaye kenn daggalu ma juuti moom kenn daggalu ma juuti ah, Sonko daal na toog rek am jàmm comprendre action yi ni mu deme rek bu dox ci loolu laa koy wax man mi ngi noonu waaw ñoo ngi maa ngi si maa ngi sant bu baax a baax. mën nañu xam tur. waaw ah, Basirou Diop. marché Basiru Basiru Diop turandoo Basiru. waaw ah, loolu la nga gisee démb nomination bi nga xamante ni jox nañ ko président Ousmane Sonko mu nekk premier ministre. waaw kontaan trop kontaan trop parce que ñun li ñu taxoon di son ak di xeex yàlla def na ci tawféex quoi ndax tey keroog bi ñu jëlee suñu carte teel a yeew mu jaral ñu bañ a xëy ngir mën koo jox Basiru ndax Basiru ay jomaay jomaay Basiru loolu moom mbégte la ci ñun quoi. parce que tey bi Sonko demul moom dana Basiru la jiital nit nag bu fekkee ko topp mu topp loolu nit da ngay topp kooku noonu quoi. léegi nag loolu lañ am fidèle boobu ak bég mbégte moom ba topp ci Basiru ba am liñ bëgg tey nga xam ne yàlla may na ko ndam lu sedd ñuy ñaan mu jikko quoi nga xam ne àdduna nag yor réew yombul quoi mais nag lu mën a doon rek après moom liñ koy ñaan mooy bu toogee dund gi daal moom na ci taxaw ba pare quoi jéem ko wàññi li ci des nag moom garaawul quoi bala mu cee jublu mu jéem a wàññi dund gi wàññi li nga xam ne nii daal borom kër yi ñu ngi koy yëg quoi te metti na ku ne xam na ne jamono dafa tar quoi parce que xool nga bu tool nii yaa ngi seen parents de famille ñu bari amuñu ko metti na nga yor njaboot war a faj te yoroo dafa metti quoi loolu moo ci nekk mais nag bég nañ quoi ci Bassirou bi nga xam ne moo yor réew mi di sama turandoo ah ñuy ñaan ndam li jikko quoi Sénégal doon beneen Sénégal beneen xar kanam feeñ incha allah. loolu mais mais ne dañ ne gis ñu woon président Ousmane Sonko nekk ci biir gouvernement ñu bëri dañoo yaakaar ne day toog asterbe ñu bëri dañoo yaakaaroon ni day toog xool ba xam ki nga xamante moom mooy Bassirou Faye waaw même euh, xam nga Sonko la la lañ jàppoon ne maanaam moo doon président mais yàlla moom li muy dogal xam nga sens ak licence day am kii am na licence mais sens bi Basirou la léegi nag nañ ko nangu sens rek loolu la quoi ndax yàlla fa muy defaree xam nga rek yàq du fa yegg te euh, nguur li benn affaire la mi ngi mel ne yow mi war a jiite sa kër rek saa bu jur demee nga war fa sës rek yaa fay ne mais caat sax mën na yor kër loolu moo ne ci kër quoi loolu moo ne nguur caat mi mën na ñëw sax yor kër gi taaw bi bañ a yor kër taaw yi mën na ñëw yor kër caat daal di lafu loolu day am quoi mais ñëpp mënuñoo jiite quoi il faut am ko jiite am ñu topp ci ginnaaw àdduna noonu lay doxee. kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy candidat perdant yi mooy ñi si mel ne bañ a tudd tur daal gis nga ci ñoo xamante ni tey war nañ mën a bokk ci li nga xam ne moom mooy gouvernement euh, Sonko. waaw bu dee gars yi nga xam ne ni gis naa li ñu war a mën a bokk ci gouvernement bi mooy ku mel ne euh, waa PUR quoi n'est-ce pas PUR waaw PUR daal laal d'accord pour le moment moom kese boo xam ne war na mën a bokk ci gouvernement Sonko mais à part ñi ci des moom non non non ñooñu waaw ñooñu moom bu sañoon dañuy xaar man daal pire laa gis ne moom su ñëwoon dina ma neex quoi waaw parce que man pire moom nekk na loo xam ne lu ma neex la man it comme ni ma Sonko ak Bassirou neexee waaw. kon tey lan ngay xaar bi nga xamante ne war nañ koo publier ni ki si ngoon allah. waaw mooy jéem a taxaw liggéey rek parce que fi mu ne wax ji pare na parce que boo waxee ba jël li nga war a jël wax amatul li waral mooy nga dóor waar teg dóor waar te bañ a geesu sa ginnaaw te looy defit nga teg ko ci yoon man loolu laa gëm. waaw jërëjëfati. ñu ngi ñu ngi lay dalal ziar. maa ngi jàmm baax na. nañ xam tur. man Ndiaga laa tudd Ndiaga Niang. nga jàngatee nomination bi nga def nañ ko président Ousmane Sonko comme premier ministre. ah xanaa kontaan ci rek am ci ñoom yaakaar tamit nag. am nañ ci yaakaar bu baax a baax parce que man mi laa wateel. waaw mun laa wateel. am nañ ci yaakaar bu baax yàlla bu yàlla tas yaakaar daal en tout cas waaye kontaan nañu trop. ay patriote lañu ñun yaa ngi ñu ngi nii kon ay patriote lañ dañoo xëdd wata ji ndogu civilé comme yàlla xam na ko. kon ñi nga xamante ne doon wax ni dañuy doon gis Sonko xool ba xam ki nga xamante moom mooy Jomaay dina doxal ñu bëri amuñu woon yaakaar kan dina dugg ci li nga xam moom mooy gouvernement bi na ci biir moom di doxal moom dana ma neex trop li mu ci doon ragal mooy loolu. waaw rafetlu naa ko trop dugg nga xamante ni ñoom ñoo ñoo ñàkk élection yi tey bu fekkee gis nga ci ñoo xamante ni war nañ bën bokk ci biir gouvernement bi ñan lay doon ah ñu si war a bokk rek moom ñoo ma gën a xam waa waa Sonko moom ñun ñu si war a bokk ñu si war a bokk ku ñu xool ba war la si war a si dugal daan la si dugal ku ñu xool nga xam ne wóolu wuñ la wala sa loxo setul moom moom mooy loolu mafia bi dafa laaj dafa laaj loxo yi set waaw loxo yi set lañ si bëgg waaw parce que ni ki tey incha allah war nañ publier li nga xamante moom mooy liste bi ndax démb loolu la ñu xamle tey lan lan ngay xaar ci nga xamante moom mooy gouvernement bi nga xam moom moo war a dawal euh, pour pour gouverner di si xaar ñu baax rek ñu baax ñu seen loxo set comme ni ma la ko waxee rek ñoo xam ne seen loxo set na waaw parce que maa ngi dégg Sonko ko na maanaam li ñi ñi liggéeykat la soxla. Ah, ñëwuñu pour nguuru bu nguuru kese du tëdd si kaso kon day dem ànd ak Macky mu am lu ko defal xam nga ñu waxtaanee ko comme ni gars yi daan defee ñoom na ma yàlla baal xam nga rek yaa ma gën a xam mais dafa nekk patriote gëm réew mi moo moo tax mu egsi fi mu egsi quoi sinon du man kay li ma leen bëgg wax mooy niñ po liñ maanaam niñ politique maanaam liñ politique ba ñu jox leen nguur gi nañ ko appliquer rek Sénégal neex ñi demoon ñëw ñi ñi toogoon gën a toog ñi si yoon yi wàññeeku waaw loolu laay wax man merci. mbokki Sénégal ku doon laajte Faly Ngoye ngi kii mooy soxna aada seexu yàlla bi waaw waaw kii mooy ponkal bi kii moo mën kii moo ëpp doole kii moo gën a gaaw dama ne déglul soxna aada seexu yàlla bi kii nag moom bu fekkee da nga am jafe-jafe ci sa wàllu wér yaram dama ne nga am jafe bu la jaaxal lool say mbir tëju say buntu tëju sa lépp daal di tëju kii moo ci gën a gaaw waaye dama laa bëgg xamal li nga xamante ne daf koy faj dama ne da nga am ay jafe-jafe ci sa yaram am ay jafe-jafe ci sa wàllu wàllu néegu sëy sa boroom kër jaaxal la lool wala sa soxna jaaxal la lool soxna aada seexu yàlla bi moo ci gën a gaaw sa yaram daal di tëju ba lool ba mu dëgër ngay déposer ay kayit mu jafe la lool nga bëgg tukki mu jafe la lool xëy nag moom munoo ko am te da ngay wër bëj bëgg dee ñëwal seet si soxna aada seexu yàlla bi moo ci gën a gaaw léegi nag déglul ma wax la wàllum seet dama ne Sénégal dañoo wër ci biir réew mi wër ci Afrique wër ci àdduna bi ñëpp daal di d'accord soxna aada seexu yàlla bi mooy dàllin kóor ci wàllu jël teg la ci kanamam di la wax sa démb sa tey ak li war a ñëw suba dama ne seet moo ci mën ci Sénégal moo ci mën ci Afrique moo ci mën ci àdduna bi ma ne te ay càngatam amul fenn bu la dugalee fii ba sang la booy xëy sa yaram daal di ubbeeku ba loolaal mu nooy te foo jublu ñu bi la ay buntu kon nag daw leen gaaw seeti soxna aada seexu yàlla bi mu lijjanti la say jafe-jafe daal di lay teg ci yoon